jërë ngeen jëf euh, mbokk yi euh, yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97.5 ñu leen di nuyu bu baax a baax euh, yéen sunu mbokk auditeurs yeeg sunu mbokk auditrices yi samedi bu jot bu ñetti waxtu jotee jàpp ñeenti waxtu ñu fas yéene ànd ak yéen ci seen émission pencum réew mi ngeen di si ànd ak Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw Diallo moo nekk ci wàllu technique bi. mbokk yi nag tey ci samedi ji dañu dellu am mbégte daal di dalal Cheikh Oumar si Euh, mu nekkoon fii euh, député assemblée nationale euh, jamono ji nag moom moo nekk président de l'observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique ba pare tamit moo jiite mbootaay gi nga xamante ni moo ëmb ñi jëfandikoo autoroute à péage bi ñu fas yéene waxtaan ak moom ponk yu bare bare bari Cheikh Omar Sy honorable député ñoo ngi am mbégte ak kontaante ci euh, invitation bi nga xamante ni tey euh, nangul nga ñu ko ngir ñu waxtaanee loo xamante ni euh, actualité réew mi la te ñu jàpp ne njariñ dina si tukkee. waaw jë kay jërëjëf di remercier auditeur ak auditrice bu réew mi FM di leen jaajëfal ñoom ñëpp di am mbégte tey di waxtaan ak yéen ci sujet d'actualité yi surtout aussi li nga xam ne war na laal lépp loo xam ne war na dem ci économie. Euh, te mu war leen soxal ak euh, sujet yoo xam ne tamit sujet politique la ak lépp loo xam ne tamit war nañ cee mën a indi ay leeral ci suñu xam-xam bu gàtt. jërëjëf euh, Cheikh Omar Sy yow yaa nekk président de l' observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique kuréel googu noonu ndax mën nga ñu si dellu sil nga indi si ay leeral ak lan mooy liggéeyam. waa kay jërëjëf euh, xam nga observatoire bi euh, observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique euh, kuréel la boo xam ne ba ñu génnee ba ma génnee en tant que député parce que nekkoon naa député 2012 2014 nekkoon ko ànd ak sëñ Mansour Sy Djamil nekkoon ko ci bés su ñàkk dama toog xalaat ne liggéey bi ma def assemblée nationale ànd ak ñeneen tamit warul mën a yem rek ci bu ñu jeexalee suñu mandat mu mu yem foofu ma xalaat ne observatoire bi war na mën a taxaw continuer saytu lépp li nga xam ne tey ñu ngi ciy def ci politique publique ndax am yàlla may nañu as tuuti ñu mën ci am gis-gis ak euh, nangu cee liggéey ànd ceeg ay ministre ànd ceeg exécutif ak yeneen corps yeeg maire yi pour xool lan bu ñu voté assemblée nationale waaye naka la ñuy exécuté budget bi ma ne ah war naa mën a continuer liggéey bi nga xam ne tey defoon nañ ko foofu boole ci tamit euh, amoon na liggéey boo xam ne defoon nañ ko mu am jéego ci lépp liy wàllum euh, bonne gouvernance dem ci ressource minérale dem ci gestion foncière euh, jëm ci li nga xam ne tey mooy environnement loolu tamit tey ma ne ah kon travail bu mën nañ ko liggéey boobu mën nañ ko continuer ci observatoire bi moo tax boo gisee observatoire bi moom Euh, plateforme la boo xam ne lépp luy bon gouvernance ak transparence muy wàllum pétrole ak gaz muy wàllum environnement muy wàllum euh, saytu lépp loo xam ne tey par exemple gouvernance numérique la ñu ngi ciy xalaat xam nga euh, xam parce que koom bu am doole la tey boo xoolee ci àdduna wi compagnie yi gën a mag yi la ñoom ci wàllum numérique la ñu amee xaalis loolu tamit dañ ci war a bàyyi xel compagnie yi gën a mag yi donc loolu tamit dañ koy saytu mais dañu ci boole tamit ñuy tàggat ak gunge jeunes yi parce que jeunes yi yenn saa yi dañuy bëgg dugg ci politique mais boo duggee ci politique tamit da ngay am àndaale ak xam-xam àndaale comprendre lan mooy enjeu économique lan mooy enjeu géopolitique naka nga lan nga yenn décision moo lay xaar suba ëllëg donc loolu tamit accompagnement la boo xam ne tey observatoire bi di def. di ci liggéey ak suñu yeneen naataango yoo xam ne de la société civile ak ñeneen personnalité bu ñu ci amee dara lu ñuy indil état bi ci contribution tamit ñu def ko. Euh, li nga xamante ne moom mooy kuréel gi euh, c'est national Sénégal kese la yam wala ci déndu Afrique euh, ma nga fa. lawal ngeen fa seen i bànqaas boobu boobu moo tax ñu ne ko en Afrique parce que suñu mbëbët mooy li ñuy liggéey nii presque foo dem même problématique yi muy am mooy mooy mooy muy. problème mu gestion problème mu gestion gouvernance transparence loolu la moo tax ñun mu ne nii ñu ngi seet. lu ñuy yaatalee liggéey bi Côte d'Ivoire ak yeneen dëkk yi nga xam ne dañu am ay antenne ñu mën a continuer di waxtaan ci loolu mën a xalaatandoo euh, mën a bokkandoo gis-gis surtout tamit mën a joxandoo orientation boo xam ne dina jëriñ Afrique Euh, est-ce que gis nga ne ñi nga xamante ni tey euh, ñoo si nekk gis nañu seen bopp ak tamit ndax sénégalais yi euh, ñoom gis nañu seen bopp ci ci kuréel gi wala maanaam am nañ ci xel mu rafet que ne lii ñu yàgg jooy ci mal gouvernance ak xeet yooyu ndax kuréel gi jàpp nga ne mën na ko saafara wala mën na si dem ba lu kawe njortu. waaw xam nga lii moom liggéey bu soog door la ñun ba ñuy exister ça fait trois ans quand même mais yàlla may ñu tey lépp loo xam ne mu ngi yëngatu. Euh, ci biir dëkk bi dinañu ci woo dinañ ci consulter dinañ ci laaj suñu xalaat te loolu mu am solo tamit dinañu am ñu tamit ay production intellectuelle yoo xam ne li ñuy wax tamit ay note d'orientation politique ba ñu génnee ci mbas ci bi ñu génnee ni Covid 19 am na loo xam ne bind nañ ko ànd ak benn fondation bu tudd Andisbool ci wàllum tey mbas bi ñu ci génnee yan orientation lañu wan am ci agriculture bi. Mm-hmm. lii nga xam ne tey tamit mooy contenu local bi ñuy wax ci pétrole ak gaz. tey suñu observatoire bi état bi consulté na ko bokk nag ci acteur yi nga xam ne état bi consulté na ko ci loolu pour am ci xam-xamam ak xalaatam. yeneen fondation comme fondation Ford wala ay ñoom Oxfam dinañ ñu consulter wala ñu ànd ak ñoom liggéey donc ñu ngi ñu ngi ciy liggéey mais bu ñu ciy liggéey dañ ciy ànd tamit ak askan bi wàcc ci suuf xalaatal leen waxtaan ak ñoom. mais mais est-ce que yooyu. waaw moom laa lay wax boo demee tey si suñu site internet di nga gis rapport yëpp li ñuy def activité boo bu ñu def ñun day am rapport. tey ñu ngi am benn programme boo xam ne ak jeunes yi dañ ko àndal mooy comme parité voté nañ ko pour que jeunes yi gën bokk ci assemblée nationale bi. gën a feeñ ak jigéen ñi. am na ay ay ay de formation ak webinaire yoo xam ne def nañ ko depuis plus de ak mbas bi sax def nañ ko plus de trois mois léegi pour gën a ñaax jeunes yi ñu mën a bokk ci ci ci askan euh, ci parti politique ñu jox leen ay ay euh, taxawaay yu gën a yu gën a dëgër. loolu yëpp ñu ngi koy liggéey mais rapport yi parce que tamit. lépp loo liggéey te amul rapport amul bind amul foo xam ne nit ñi mën nañu dem saytu ko loolu amul njëriñ donc ñu lépp lu ñuy def benn activité bu ñu mënta def dañuy def rapport. mais proposition yi est-ce dem euh, yi dina am na benn boo xam ne yàggul jox naa ko loxoog loxoog président de la république mooy suñu note d'orientation politique bi euh, ci wàllum mbas bi jox naa ko président de la république am na ay recommandations yoo xam ne dama koy dañ koy jox directement ministre yi ñu waxtaan yoo xam ne tamit dañ koy proposer comme sur code de la loi bi di war a génne sur su la loi sur le littoral yàggul woo nañu ci réunion bi joxe nañ tamit suñuy contribution donc loolu yëpp mu ngi mooy bàyyi nañ ñu xel ci ñun tamit suñu contribution bi ñu bëggee indi ci wàllum liggéey pour Sénégal jëm kanam. d'accord euh, jërëjëf euh, Cheikh Omar Sy euh, sànq si sa biir wax sax yaa ngi tudd littoral bi ñu gis ne amoon nga ci am nga ci benn taxawaay boo xamante ni taxawaay bu am solo la ni nga xamante ni tey moom la ñuy saax saaxee li nga xamante ni mooy suufu géej gi ci Sénégal ñu gis ne mbir la moo xamante ni mu yàgg la. yéen a ngi ci xeex est-ce que xeex bu yomb la. loo xeex bi yombul parce que fi mu fi mu fi mu egg ci li nga xam ne problème li mu indi ci problème ak dayo bi ak ñàkk jël ko en charge sérieusement par l'état moo indi coow li bëri foncier bi am problème mooy boo laalee littoral beeg boo ci biir euh, foncier rural bi ci hmm. biir dëkk bi boo demee problème gis nañ fi problème mu Dengaleer Euh, gis nañ fi problème mu Tobène gis nañ fi problème mu gaar fii gis nañ fi ay problème bi bëri dul jeex mboojeen fële ci ngéejeen am na am na problème bu fa am ak euh, ak italiens yi fa nekk donc loolu yëpp dafa indi loo xam ne tey ay jeexital yoo xam ne tey dañ ci bëgg waxtaan parce que xam nga commission de réforme foncière président de la république moo ko tegoon mais après daf ci tegaat tànkam parce que nee na dafa yàgg dañ kon nee ne ne moom euh, pour recommandation yi dañ ne ne suuf nañ ko jox maire yi mais ñi ko bind nee nañ loolu amul donc ñun ñu ngi pousse président de la république du ko invité que commission de réforme foncière boobu mu tegaat ko sur la table ñu mënaat waxtaan ba mën a àddu ci li nga xam ne tey mooy nañ la ñu defee suuf si. loi sur le euh, littoral bi xeex bi di ngeen dégg ngeen ko depuis plus de trois mois coow li bëri na fi euh, fexe nañu tey. ànd yeneen kuréel yoo xam ne ñu ngi ay association lañu comme association Perle bi nga xam ne Makhtar Ba moo koy jiite ànd yeneen kuréel yoo xam ne par exemple ay euh, mouvement euh, pour protéger phare bi fexe nañu ba phare bi nga xam ne ni nga ko doon waaj a agressé arrêté nañu lépp li nga xam ne mu ngi ci ci wetu phare bi ci kanamam donc am na am na jeexital non seulement loolu mu am na benn benn benn. benn benn benn ONG bu nekkoon foofu bu doon tabax ci suufu faar bi bu tudd Wami fexe nañu ba Descos arrêté ko ba ñu xool naka la ñuy tojee loolu ñu delloowaat faar bi ni mu meloon. donc am na ay liggéey yàggul trop même même pas une semaine ministère de l' environnement et du développement durable woo na fii ay kuréel yu bëri ci réunion ñun ci li ñu bokkoon pour xool loi sur le bi naka la ndax nangu nañu liñ ci bind te vraiment yaatal nañu waxtaan bi ba. topp ñu di ñu laajaat ñu def ay recommandations pour nu ñu xoolee naka la ñuy appliquer la loi sur le littoral donc doo yàgg yaakaar nañ ne loi silo le littoral bi nga xam ne depuis dix ans ñu ngi ciy daw ñu ngi dinañ ko voté bu ñu ko voté dina am lu muy protéger lu bëri ci littoral bi donc am na ay ay ay jéego ñu ci am. mais il faut que état bi gën a jël sérieusement la gestion foncière balaa muy tas réew mi. d'accord euh, euh honorable député euh, doon nga fi wax ci lu jëm ci euh, ñu daal di supprimer li nga xam ne moom mooy direction impôts et domaines lan moo taxoon nga wax loolu. waaw parce que xam nga tey direction des impôts et domaines lu ñu koy woowee mooy direction générale des impôts et domaines. loolu pratiquement amatul fenn ci Afrique Sénégal mooy les rares pays boo xam ne tey am na direction générale des impôts et domaines bu leen neexee ngeen xool ko ci ci ngeen kii ko dafa am dëkk yoo xam ne yu bëri tey dañu am direction générale des impôts impôts rek la ñuy yëkkati domaine euh, lépp luy foncier après da ngay gis agence foncière rurale wala agence pour la gestion foncière nga xam ne ñoom dañuy toog saytu defar naka la ñuy naka la ñuy gérer suuf si ak ñu teg ci yoon mais impôt et domaine ni muy doxee nii dafa bëri ay njuuj njaaj dafa bari ay depuis temps Abdou Diouf mosoo dégg ay directeur des impôts et domaines ça veut pas dire que amul woon ay njuuj njaaj mais tey la gën a fës tey loo xam ne tey gis nañu problème ku fi nekk directeur des impôts boo fi jógee rek dañ dañ lay poursuivre wala nga am ay problème gis nañu kii nekk prison actuellement gis nañu Mamour Diallo ñu ko moom tamit am na ay problème ba ñu génn jëlee ko fa coow li bëri li topp tey Mame Boye Diaw donc ñooñu tamit te nu ñu nu ñuy defee ak syndicat des impôts et domaines nga bëgg foo xam ne fu suuf am yow nga am si sa wàll bul jeexee yow mi si sa bopp waa réew mi kenn du ci am suuf man mii du ma am suuf lu tax policier bi du am suuf ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen yenn saa yi ñoom i tamit dañuy dagg ay ay ay hectares fii hectares yi ñoom ñu ñu boole ci seen bopp ba pare jël jaayaat ko mu indi li ñuy wax renchérissement foncier moom ma indi Dakar di cher ak lu ñuy wax la rente foncière donc yooyu yëpp tey fu mu ne nii boo tasul impôt et domaine jox ko beneen rôle bu bu bu gën a clair war ko gën a mën a encadrer ba nga xam ne suuf si dootuñu ko saax saaxe loolu dina tax tey fu mu ne nii euh, lépp li nga xam ne tey mooy. Euh, lépp li nga xam ne tey mooy euh, mooy euh, euh, ni ñuy defee nu ñuy nu ñuy saax saaxee suuf si dinañ ko arrêté. d' accord léegi lan ngay proposé boo waxee ñu dindi fii. non dama ne man moom li mu wax c' boo jëlee da ngay da ngay am direction générale des impôts impôts rek lay toppatoo. ok impôt kese kese nga am par exemple agence pour la régulation du foncier. waaw foncier rek lay toppatoo. waaw agence pour la régulation du foncier foncier rek lay toppatoo gis nga zone yi dañ ko war a découper nga xam ne fii mooy zone d' fii mooy zone de mbay fii mooy zone de dëkk. bu ñu xamee ne fii ngay dëkk yow fii tey Cheikh Omar fii ak ñeneen ñi dañu ne ne fii zone bi am nañu ay kër yoo xam ne commencé na cent cinquante mètres carrés ba cinq 500 mètres carrés képp ku bëgg na nga joxe sa carte d' identité du jaay bu ñu la koy jaay la koy jaay prix boo xam ne yow. da ngay dem directement nga ma fay banque bi banque bi moom mooy fay impôt et domaine. mais dinañ ci teg ay jéego yoo xam ne yow boo booy jënd. non seulement amatoo droit jënd feneen en attendant wala ci zone boobu amoo droit jënd feneen mais aussi promoteur bi du ci am pendant dix ans du ci mën a def ay ay spéculation foncière man mi jënd tamit du ma ko mën a jaay ci saa si il faut soit wala bu mu nekkee dama ko bëgg a dama ko bëgg a mën naa ko jox sama njaboot. ci prix bi ñu la ko joxee tamit. dinañu fexe ba xam ne dina yomb ba nga xam ne yow banque bi boo fayee immédiatement. boo fayee yow immédiatement bu ñu la ko jaayee un million wala un million cinq cent ñu defal la ko sur ay échéance boo ko fay boo paree da am immédiatement sa titre foncier boo amee sa titre foncier banque bi immé mu jox la xaalis léegi léegi nga tabax. xalaat ngeen si ñu ngi ciy xalaat bu ma bu ci xalaatul woon du ma la ko wax. donc yooyu yëpp day participer pour réguler tey naka la ñu war a mën a le foncier comme ça mu nekk une démocratisation foncière. par zone ñu xam naka lañ ko dañ la defee promoteurs yi tamit dinañu mën a liggéey te foo xam ne levée de fonds bi dina yomb ci ñoom ba pare euh, ñi nga xam ne tamit ñoom ñoo bëgg a tabax duñu ci sonn. d'accord. Euh, jërëjëf euh, Cheikh Omar si yow yaa jiite euh, li nga xamante ni yow yaay président de l' observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique léegi ñu wax tamit ci li nga xamante ni mooy annulation dette bi am na sax benn kuréel pour tudd initiative pour l' annulation de africaine. Euh, yow gis nañ ne euh, bokk nga si ñi si njëkk euh, doon wax ne da ngeen di sàkku ngir ñu baal Afrique li nga xamante ne maanaam moom mooy moom mooy bor bi lan moo tax ngeen di sàkku loolu ak ngeen di sàkku ñu baal leen bor bi. waaw xam nga bor bi fu mu toll nii ak mbas bi munoo boole ñaar ñi parce que dafa metti mm-hmm. li nga xam ne tey mooy initiative dëgg la ñun suñu kuréel kuréel OSIDEA bokk na ci initiative boobu initiative pour la annulation de la dette africaine. Euh, li tax ñu bokk ci couleur bi lu tax ñu soutenir tamit président de la république ci loolu mbas ba mu duggee ba léegi dafa indi ay jafe-jafe yu bëri te léegi bu jafe-jafe yooyu amee du point de vue social état bi mënatul jël en charge yenn questions yi état bi mënatul mënatul def yenn dépenses yi parce que xaalis bi mu prévoiroon ci yenn secteurs yi da koy jël récupérer ko pour mën a xeex mbas bi bu ko defee doole bi day wàññeeku économiquement transport amatul tourisme bi daanu na euh, commerce bi wàññeeku daan lu baax recette fiscale yi duggatuñu euh, transport aérien ak ferroviaire tamit wàññi na ko donc activité économique bu wàññee te ñun ay état yoo xam ne ñun ci ci ci ci recette la ñuy dundee. du am mhm. loolu day metti ci ñun léegi li ñu wax ñun mooy Europe. États-Unis ñu ngi injecté xaalis bu bëri seen économie dañ koy imprimer di ko dugal seen économie. di yónnee ay chèques ci ay famille pour ñu mën a mën a dund ay entreprises di leen jàppale ñun amuñu possibilité boobu benn possibilité la am rek mooy ñu annulé ñu dette bi. comme ñoom ñu def Mauritanie ne nañu def waaw waaw parce que def nañu moratoire dëgg la moratoire da mooy dinañu suspendre li ngeen xam ne da ngeen doon fay ci ci bor bi ñi bi ngeen yore. pendant un an ngeen mën a économiser mais loolu du doy. moratoire boobu du doy ñun lu ñu wax. am na ay am na ay borom xam-xam tey yoo xam ne ñu ngi à l'Occident. mais ñoom nee nañu boru boru boru entreprise yi nekk foofu en Occident nañ leen nañ leen nañ leen annuler bu nekkee ñoom ñi nga xam ne am nañu doole nee nañ nañu annuler seen dette yi nekk seen biir dëkk. sagam dugal ñun ñi nga xam ne tey ay ñun ay ay pays pauvre lañ. xanaa koo kay moo gën a mën a yéen la nga bàyyi ko borom. d'accord mais euh, honorable député euh, ban lay ngeen di lay wala lan ngeen di teg ci table bi. pour ñu mën a baal Afrique bor boobu maanaam yan argument ngeen di. mais mais Covid bi rek argument la. Covid bi ci boppam argument la parce que économie yi dañuy daanu bu daanuwee lan mooy am conséquence première bi mooy yow mën nga xëy nga nga perte sa emploi nga def immigration immigration faa dem du doo dem pays européen parce que amatoo liggéey fii da ngay dem fële. pour relancer suñu économie il faut que ñu am xaalis xaalis boobu comme ñun impression bi ñu ko war a imprimer mënuñu ko suñu dëkk yi amuñu ko banque centrale moo ko def te amul doole pour pour def loolu yëpp lenn rek moo mën a am annuler dette bi ñu ko recommencer à zéro mais dëkk yooyu yëpp ñu ngi koy def pourquoi ñoom ñu koy def seen dëkk te ñun waruñu ko mën a def suñu dëkk lay bi ñu utiliser pour ñoom ñu war ko mën a dimbali seen entreprise boobu loolu lay boobu la ñu moom la ñu bokk ñun tamit pour ñu ne ñu dañoo bëgg a euh, jàppale suñu entreprise yi ñu dox. d'accord donc lay bi benn la. du ñaari lay. d'accord mais mais mais euh, honorable député gis nañ ne Covid bi dafa commencé rek président Macky Sall mel ni ko sol robu avocat euh, pays yi nekk ci Afrique gi yépp beneen bi tamit mooy tey xeex bi nan ngeen ko fas yéenee yaatale wala nan ngeen ko fas yéenee doxalee ba mbir mi sotti. waaw xam nga tey initiative pour la dette pour l'annulation de la dette africaine boobu. dafa am ay personnalités yi ci bokk ay parti ay parti politique ay euh, organisation de la société civile ak ñeneen fexe nañu tey ba kuréel bi commencé def na lancement fexe nañu ba ñu ñu ñuy commencé di ñu recevoir gis nañu fi au euh, dem nañu conseil économique et social ñuy dem conseiller war nañu rencontrer assemblée nationale war nañu rencontrer les ambassadeurs yi nga xam ne dëkk yooyu conseil de ñu ngi fi. ñu ngi commencé ñu ngi wut benn siège fii ñu ngi waxtaan ak suñu naataangoo yeneen dëkk yi. c'est-à-dire dañ koy yaatal ba nga xam ne yeneen dëkk dañ ci bokk mu nekk benn baat donc ñu ngi ciy liggéey liggéey bu am jom non mais euh, mais li li ñuy def ni politique la demander l'annulation de la dette c'est pas seulement euh, technique c'est politique ñoom bu ñu demee di relancer bay ne dañuy injecter xaalis c'est une décision politique pour mu ñu am benn impact technique donc ça waay ñaari mënuñu leen séparer. mais la décision doit être d'abord une décision politique moo tax président de la république sol mbubbam teel ne nañ ko annuler parce que xam na ne jafe-jafe yu mu nar a jur. avion yi tey ñëpp ñëpp ngi gaare dégg nañu Air Sénégal am na problème Air France am na problème Lufthansa am na problème mais dëkk yi mu am problème France nee na dina jox ñaata milliards Air France mais Sénégal mënu ko jox Air Sénégal il faut nécessairement ñu annuler dette bi. d' accord mais euh, honorable député tey euh, yéen yéen taxaw ngeen pour ñu annuler dette bi président Macky Sall taxaw na si mais est ce que sensibilisation bi ngeen si war a def wala communication bi ngeen si war a def ci askan bi euh, est ce que yéen a ngi koy def liggéey waaw mais xam nga liggéey buy door la dégg nañu président di ci wax taxawal nañu couleur bi ci liggéey donc am na ay signature yu commencé am na ay nit ñu commencé rencontré loolu yëpp ci sensibilisation bi la bokk dafay jël temps ak du affaire bu yomb. mais au niveau international am nañu ay soutien parce que am na ay ay banque mondiale am na ñu ci wax commencé wax am na chinois yi nga xam ne ñoom dafa am dette publique ak dette privée. Hmm. dette privée bi di ci bëri am na chinois yu ci duñ ci téye donc ñooñu ñëpp ñu commencé ñuy waxtaan ak ñoom parce que tey bu ñu annulé wul dette bi même conséquence économique yi bu amee fii Afrique ak bu yenn problème yi ñoom dañ koy am par rapport ak ñun ñu mën leen rembourser rembourser dette boobu balaa caat. ñu mën a xool exactement lan moo war a mën a pousse Afrique ak lan moo war a mën a indi situation économique bi ñu ñu génn ci pour moom mu nekk ak ñun ak ñoom. benn bénéfice pour ñaar ñun ñu ñun ñaar ñëpp. loolu du lu bees 2008 ba fi États-Unis amee problème ba ñu wax la crise subprime ba affaire yi daanoo fi indi fi benn crise mondiale bu métti mais annulé États-Unis dafa annulé ay dettes yu dul jeex Europe annulé ay dettes yu dul jeex pour seen économie ñu relancer donc loolu du du du du du gulet muy am. l' essentiel mooy ñun nañu atteindre suñu objectif ba pare dimbali suñu réew ñu commencé. Euh, ñu mën a relancer mais euh, Cheikh Omar Sy euh, li nga xamante ni mooy annulation dette bi tey ñëpp bu ñu sañoon tey ñu annulé dette dette bi mais coronavirus bii nga xamante ni tey yéen yow moom nga wax ne loolu rek lay la pour ngeen teg ko pour ñu wàññi dette bi est-ce que yow wala ñu mel ni yow wala seen kuréel gi mënu leen a def ay proposition état bu Sénégal ndax gis nañ ne train de vie de l' dafa dafa charge la yoo xamante ni ay milliards milliards la est ce que état bi tamit moom tim bien vrai que ma ngi xeex pour ñu wàññi dette bi mais waroon na jéem a wàññi moom tim euh, aw doxalinam. non xam nga tey tey boo xoolee am na ay jéegu yoo xam ne état du Sénégal mu ngi def pour réduire ay ay ay ceeb même avant dette bi ne dégg nañ fi seen seen i ay facture téléphone seen i affaire dégg nañ fi affaire oto yi dégg nañ fi lu bëri carburant yeeg yooyu même yu bëri yoo xam ne exa ñu ñu ngi jëm tey boo demee ci ministère yi am na ay dépenses yoo xam ne mëntuñ ko def parce que amuñu xaalis boobu donc loolu de facto crise bi dafa dafa indi situation boo xam ne état bi il faut mu ren par la force il faut mu wàññi train de vie am. Mm-hmm. li nga wax dëgg la dinañu mën a xeex ci kaw wala war nañu organiser ci ci ci suñu biir. Mm-hmm. te loolu dafa am solo parce que pandémie bi daf ñu yee ci yu bëri daf ñu woon tamit ne am na ay loo xam ne ñu ngi ko doon def te amul woon. ba njëriñ ba njëriñ donc il faut loolu yëpp ñu xalaat ko tey war nañu tamit président de la république xalaat wàññi ministères yi reconcentrer ministères tey boo waxee ministère. du ministère du sport lan moo gën a ànd ak moom jeunesse. nga boole jeunesse ak sport jarul muy kii am na yeneen noonu laa la. donc am na ay ministères yoo xam ne. même élevage élevage yooyu yëpp mën nga boole mais boo demee par exemple beneen ñu ngi doon wax tànk ci suuf si boo demee beneen la xaw ma ban dëkk. mais da am ministère de de ministère de l' agriculture et du foncier rural. dafa am logique. parce que mënoo <laughs> def agriculture te gérer woo foncier bi. donc yooyu tamit dafa am. ministère du tourisme et du transport aérien. éducation yooyu yëpp mën nga def benn benn mais tey France moo ñu doole foofu ñaata ministère la. waaw mais fi ñu gis ministère bu yor njàng mu mën nañ loolu xam nga la la boo defoon ministère de de de l' éducation de la de l' de l' enseignement yooyu yëpp mën nga mu nekk benn département la département nga koy wooyee département de l' éducation et de l' supérieur nga xam ne moo tax déggo américain lan lañ la wax département d' état mais département d' état boobu ci biir am nga ay direction de sécurité ci biir am nga ay direction diplomatie ci biir am nga ko c' est à dire que tey au lieu mu nekk suñu problème mooy on est resté dañoo des ci système français ba pare ñun li ñu def moo ëpp li am nga système français boo xoolee seen ministère yi parce que ñun la ñuy copier mais ñun dañ ko gën a tas parce que politique bi ku nekk il faut ñu jëral cëral la dara nañuy tas fii créer benn ministère bu kii jox ko diw parce que mu ngi accompagner président de la république nañuy tas fii jox diw parce que mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi accompagner président de la république mais yooyu day amul amul day yàq architecture gouvernementale mais boo xoolee yenn yenn man ministère de la ministère de de la femme de la solidarité nationale Euh, de de de de la de l' enfance ak xaw ma yooyu yëpp mais yooyu ay mën na nekk ay direction rek. d'accord direction du ministère de la santé. ci mhm. ministère de la santé. Mhm. boo ko dugalee. Mhm. ministère de la santé mën nga am direction de la femme et de l' enfance mën nga am direction de kii mu nekk ay direction yu mag. Euh, honorable député yéen yéen a ngi xeex pour ñu wàññi euh, wàññi bor bi maanaam annuler li nga xamante ni mooy dette bi mais tamit li nga xamante ni moom lañ nemmeeku mooy ci ci Afrique. Euh, rawatina fii nga xamante ni moom mooy senegal mooy euh, ñun sunu njiitu réew yi li ñuy leb ci xaalis dafa bari naam leb munut a ñàkk euh, waaye soo lebee nga dugal ko foo xamante ni tey fu am njariñ la est-ce que loolu tamit yéen su ngeen woowee askan bi ñu ñëpp jàpp ci xeex bi ba ñu annulé dette bi est-ce que tamit di ngeen wooyewaat noonu askan wi ngir ñu bàyyi xel ci xaalis bi ñuy leb nan lañu koy jëfandikoo naam leb mënut a ñàkk. loolu li nga wax la bor même boo tey ban bu ma nekkee homme d'affaires fii il faut ma dem banque bi pour mën a lebu pour mën a seet sama business naka laa koy kii mais homme d'affaires bi ma nekk xam naa ne xaalis bi ma war a jël waruma ko dem tabaxee sama kër jëndal sama oto bopp dam ko lebu pour benn business état loolu la war a fonctionner mais yenn saa dañuy def ay dépenses de prestige yoo xam ne ci biir bor yi amuluñu benn solo mm-hmm. amuluñu benn njëriñ deuxième deuxièmement mooy aujourd'hui balaa ñuy dem di boru dañu war a mën a seet au plan interne ñun yan mécanisme de financement interne dañu war a gën a pousse ba pare nga xam ne même booy boru boo naroon jël cent à l'extérieur da ngay mujjee jël foofu vingt ngay am si quatre-vingt ci biir tey boo xoolee budget Sénégal boo xoolee budget Sénégal quatre mille milliards et quelque la mais boo xoolee diaspora bi lu muy dugal mille milliards et quelque la ça veut dire c'est presque un quart du budget du Sénégal boo waree mën a organiser ba capter au moins lu mu bon bon vingt pour cent wala trente pour cent ci xaalisu diaspora bi rek yow mën nga am ay financement yu bëri yoo xam ne doo ko wute à l'extérieur parce que ci xaalisu diaspora boobu mën nga am ay fonds de garantie pour lever yeneen fonds yoo xam ne dina la permettre ngay ngay assurer sa projet nga xool secteur prioritaire yi nga xam ne tey boo fa dugalee sa xaalis dina la mën a rapporter lu bëri loo xam ne jarutul ngay dem à l'extérieur di ko fa lebu parce que bu généré loolu tey au lieu ngay dem lebu xaalis pour defar ay tali xaalis boobu ngay tibb fii dugal fële te bénéfice la lay nekkal yooyu yëpp ci vision lañ koy teg vision dafa am solo ñii teg nañu benn vision PSE mais vision bi li ci ëpp dafa jël loo xam ne daf ko dem boru à l'extérieur te bi ni ko gis ne dégg nañu fi ay club de Paris man li ma gëm mooy xaalis bu ñu war a yëkkati tey prioritairement ci mbay bi la war a dem am nañu pétrole ak gaz naam ñu def priorité ci xaalis bi di jóge ci pétrole ak gaz dañu war a def priorité ci naka la ñuy organiser suñu secteur primaire yi mooy mbay bi mooy élevage bi mooy pêche bi gis nga loolu boo voilà mais voilà parce que ci à partir de secteurs yooyu ngay génne secteur de transformation yi moom ngay indi unité de transformation yi les gaz yu bu ñëwee nga am sa centrale à gaz à Saint-Louis nga am sa centrale à gaz à à à Kayar mhm. mais yow électricité bi nga xam ne da doon ci jar cent mais di nga ko wàññi ba vingt francs donc unité de transformation bi man mën naa ko jënd man mi nga xam ne dafa cheroon ci man jaaratul may jaar état damay dem ci banque bi ñu lebal ma xaalis ma indi sama unité de transformation parce que xam naa ne courant bi may na ma léegi soow bi nga xam ne dama ko doon tuur mën naa ko conserver soble bi doon yàqu mën naa ko conserver ci noor bi mën naa ko conserver ci Kaolack mën naa ko conserver beneen parce que électricité bi ci boobu moo cheratul mhm. loolu lan lay indi bor bi nga na doon jëli à l'extérieur noo ko jëri di parce que ce secteur primaire mu ngi jur li nga xam ne indi na transformation économique boo xam ne ay unité industrielle la te unité industrielle waxuma ay unité yu mag de dama ne ay unité yu ndaw la li ñuy wax ay toute petite entreprise yoo xam ne ay dix quinze personnes lay utiliser dafa am doole économie suisse loolu moo ko tey économie Corée du Sud loolu moo ko téye économie Allemagne loolu moo ko téye unité industrielle yu ndaw yi dañuy spécialisé ba nga xam ne chaîne de valeur bi day am doole. ci production mais mais xalaat bi na mais na mais est-ce que jàpp nga ne euh, mën na nekk Sénégal. ça dépend kan moo kan mooy jiite Sénégal ak am na volonté politique pour def ko. tey président de la république. am na vision moom lay appliqué. suba 2024 nga ne am na vision mooy PSE. PSE mooy vision président de la république. man boo ma ñëwee ne Cheikh Oumar. sa vision mu lan mooy. démb non non li nga wax que ne que ñun politique bi ñu war a def ci mbay mi ak ci ak ci napp gi bu ñu ko defoon tey. Euh, bëri na loo xamante ni tey war na ko maanaam war nañu mën sukkandiku rek ci loolu pour pour développer suñu réew comme li nga wax nii. mais loolu laa la mën la mais am nga industrie Sénégal normalement bu ko encadré bu baax doo dem jëndi engrais bu cher à l'extérieur ko fi loolu loolu incongruité bu mag la. yow mbay mbay lan la njëkk soxla engrais. Mm-hmm. nga am société bu tudd ICS. Mm-hmm. muy produire phosphate. Mm-hmm. phosphate bi indien yi di ko yóbbu seen dëkk. ñu dem transformer ko yow nga dem ci marché international nga jëndee ko encore plus cher. pour ñëw def ko sa mbay. mais sa ni ngay produire day cher. tey li ñu proposé tey ñun président de la république ci wàllu mbas bi nee nañu ñu créer des zones yu ñu tudd les zones périurbaines d' agriculture. ñi nga xam ne agriculture bi ñuy def agriculture périurbaine bi mën nga ko def entre. jam ñaajo ba njas ay ay seer lay nekk gis nañ ci ay dëkk yu bëri boo xam ne booy wàcc avion da ngay gis ay seer yu bëri lan la gars dañuy bay ci biir ville yi day indi li ñuy wax la sécurité de prox euh, la sécurité alimentaire de proximité du dem ba sori pour ñu dem loo soxla nga fexe tey ba sénégalais bu nekk bu amee cinq 5000 francs mm-hmm. war a mën a ndékki añ reer loolu boo ko réglé mm-hmm. sa économie da nga koy jox doole deuxième li ñu war a réglé mooy euh, mooy mooy mooy gérer gérer location yi location yi mu ngi ëpp explosé parce que charge locative yi bu amee doole yow dootoo mën a permettre sa sa population ñu mën a def épargne publique épargne publique bu amul état du am doole pour bañ a mën a dem lebu ji parce que épargne publique mooy tax état ah am naa lu ma dese ak lu ma denc jarul ma koy dem lebu naa ko dugal tey secteur mu julaat xaalis ma dugal ko ci loolu yëpp ay xaraal la yoo xam ne buñ ko tegee ci table bi war nañu mën a dimbali suqali suñu suñu koom-koom. Ah, euh, yaa ngi wax euh, honorable député lu jëm ci wàllum location bu cher bi euh, gis nañ président Macky Sall taxawal benn projet cent 100000 logements ndax jàpp nga ne loolu solution la. waaw gis nga yàlla mooy indi parce que sànq yaa may laaj suñu observatoire bi ndax ñu ngi ci liggéey ñu ngi nii ci semaine bii di ñëw ci ñaar dans deux semaines ñu ngi ci ànd ak ministère euh, de l'urbanisme bu Karim Fofana jiite Abdou Karim ñu ngi ci ànd ak benn organisation bu tuddu euh, international budget euh, partnership mi nga xam ne monsieur Malagne Niang moo ko jiite pour waxtaan ci cent mille logements yooyu dañuy woo ci waxtaan nee ñu ah cent mille logements yaa ngi nii ñu ngi koy préparer lan nga ci xalaat ñu boole ci ñu boole société civile bi boole ñoom seen i département boole ay promoteur boole ay député boole ay maire dajee pendant deux jours ñu mën a xalaat pour cent mille yi naka lay demee loolu c'est une bonne mais commencé nañu waxtaan déjà ci logement yi naka la ñu war a mën a tëralee mais am na loo xam ne tamit boo ko def ci politique de logement waroo del sa suuf di ko jox ay marocain ñu lay ay ay comme euh, euh, dugur xaw ma dagur fii euh, pour ñu pour ñu fay tabax ay kër loolu da nga war a concentrer SICAP war a concentré HLM am nga ko. am fi ay structure de l' yoo xam ne ñoom ñu ci affaire logement bi. boole dooleel leen soit nga créer benn direction bu mag boo xam ne mi urbanisme moo koy gérer nga xam ne lépp mu de politique de logement koy gérer. nga xam ne affaire yi du tasaaroo. SICAP du def ay programme am à part. pour def ay programme am à part ministère de l'urbanisme di def ay programme am loolu lay jeexal. day kii dafa war a am benn chapeau. d' organisation. bi nga xam ne tey projet yi dañuy méngoo. ñu mën a am doole xaalis bi yëpp muy tasaaroo. kenn ne xam li voilà mais xam nga tey par exemple président de la république dafa jël benn tax de 2000 francs ci ci ci ciment bi. Mhm. mais loolu créé na tey une plus-value de quinze milliards boo xam ne ci projet 100000 logements yi. moom la war a dimbali pour askan bi bu ñu amul doole ñu mën a am logement. loolu yëpp baax na mais dañ ko war a structurer ak yeneen yeneen département état bi. ba nga xam ne projet bi dina fexe ba sénégalais bu nekk am logement. d'accord euh, jërëjëf euh, Cheikh Omar Sy mbokk yi yéen a ngi déglu rajo réew mi FM seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot euh, bu ñetti waxtu jotee jàpp ñeenti waxtu ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck tey nag ñu invité honorable député Cheikh Omar Sy moom mu nekkoon fi député jamono ji nag moo jiite kuréel gi nga xamante ne moo ëmb ñuy jëfandikoo autoroute à bi waaye tamit moo nekk président de l'observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique. moom la euh, invité tey ci euh, samedi ji euh, honorable député ñu wax ci li nga xamante ni moom mooy président Macky fan yi ñu génn gis nañ ne demoon na demoon na France ci ndaje mi nga xamante ni tey entreprise française yi ñoom ñoo ko organisé woon ngir xalaat ñoom ana nan la ñuy def ba seen koomu réew jëmaat sa kanam mais ci ndaje moomu président Macky Sall def na fa benn benn discours yaakaar naa déglu nga discours bi nan nga ko jàngatee. waaw discours bi mu def baax na partenaire logique le Sénégal depuis avant les indépendances moo doon suñu côté donc euh, euh, bu ñu amee jafe-jafe gis nañu suñu gouvernement yi foofu la ñu njëkk def bon am na rencontre bu mu demoon nee na ne jot na fa am 17 milliards pour continuer terre bi te terre bi dina continuer léegi doot euh, prolongement bi war a jógee jam ñaajo bay aéroport loolu moo doon lésiku terre bi même bu nekkee ba tey dañuy joytu ne terre bi dafa cher ba mu ëpp 17 milliards yooyu tamit dañu xam ne am na bunt boo xam ne foofu lay jaaree pour fay entreprise yi nga xam ne ñu ngi ci biir te am am na ñu ci biir ay entreprise française la ñu ñoom tamit loolu bokk na ci conditions yi nga xam ne teg nañ ko teg nañ ko teg nañ ko ci ci ci ci table bi euh, euh, mu rencontré tamit waa waa waa MEDEF mooy ñi nga xam ne tey ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy chef d' yi mu wax ak gis-gis bu bees dañ ko war a am ci Afrique boo boobu du guleen mu wax ko yàgg na ko wax mais gis-gis bu bees boobu tamit ñuy wax ci war nañ ko am ñooñu investisseurs yooyu ci Afrique ñun ñoo ko war a créer doo dem rek yem ci ne leen Afrique mu ngi développé dangeen war a am gis-gis bu bees ci ñoom déedéet da nga war a def loo xam ne wala ñu teg jéego yoo xam ne ñoom bu ñu bëggee ñëw Afrique dinañu xam ne Afrique ci boppam jël na en charge yi yenn problématique yi ba pare mën nañ ñëw investir te am na loo xam ne yooyu tamit balaa nga koy jox ñooñu ñu koy investir da nga war a dooleel. sa sa sa sa sa sa patronat à l'intérieur wàllum kër ni mu ko doon waxee daal keroog ay marocain waruñu jóg Maroc di ñu tabaxal suñu kër yoo xam ne ñun sociologiquement xam nañ li ñu bëgg du lu du lu bees c'est-à-dire que c'est pas extraordinaire am na ay projets yoo xam ne dañ koy jox ay ay nit ay entreprises extérieures du lu bees boo xoolee nag loo xam ne tey technologiquement amoo ko euh, capacité yi amoo ko ñu ko war a doxale amagul nangul nañ la nga dem jëli ñeneen ñu woon ci liggéey mais dafay am transfert de technologie yow yaay préparé sa bopp parce que boo leen nee war ngeen am gis-gis bu bees. Mhm. ci seen Afrique yow tamit war nga am gis-gis bu bees ci ni nga war a mën a développer sa secteur ak sa patronat ba nga xam ne dañuy am doole ba production bi am doole. Mhm. tey fu mu ne nii li ci ëpp ci patronat bi amu seen dañ amatuñu mënatuñ dem parce que Covid bi dafa leen daaneel. ñun amuñu un un secteur patronat très fort parce que patronat bi lu muy def yëpp da ko wetti wekk ci état bi mais def dépendrul directement de l' état français mais da ci appuyé wu pour ñoom seen entreprise yi mën a développé boo demee aux États-Unis Trump lu mu nekk chef de l' état les entreprises yu mag yi dépendre ci ni ci état dañu am seen i seen i seen i produits am lu ñuy jaay am seen i li ñuy teg ci marché bi ñu war ko mën a jaay bu demee nag ba président de la république taxaw dafa la leen di dimbali ci li ñuy bëgga a jaay mu egg à l'extérieur noonu lay demee ñun loolu lañu war a def dooleel créer un patronat wala dimbali patrona bi mu créer un secteur privé bu am doole tey boo génnee doo dootoo dégg sax patrona patron <laughs> boo ko déggee ñi ci ëpp fii dañuy Dakar mais demal ci biir réew yi c'est-à-dire que Dakar boo fi génnee concentration de de d'économie bi dafa am doole ba nga xam ne yeneen kuréel yëpp amuñu yooyu tamit dañ ko war a tas. ñu war a mën a xool naka la suñu économie di dox naam dañu war am ay investisseurs yu jóge à l'extérieur mais waruñu leen bàyyi ñoom ñu tey suñu koom-koom. waaw mais euh, honorable tey euh, comme sànq ni nga ko waxee mooy euh, patronat bu bu Sénégal mën nañu bañ a am yenn mën nañu bañ am yenn doole yi. mais tey par exemple tey Cheikh Omar Sy moom euh, mën na gañe marché boo xamante ni tey dina mën a dem ci bitim réew jëli koo xamante ni tey dina mën a euh, dafa moom euh, dina mën a sous-traité ak moom ndax gis nañ ne am na ñoo xam dañuy ñëw Sénégal mais dañuy jël ay entreprise yoo xamante ni fii ci Sénégal la nekk. waaw d'accord déggu lim bu nekkee tey am na loo xam ne yow xool nga ne fii mënoo koo def mais dem nga am nga sañ-sañ. dem contracté ak benn ak sa société mais booy defar contrat bi tamit doo néewal sa doole. am na ñoo xam ne dañuy dem jëli contrat dem société extérieure nañ ci am benn dix wala vingt pour cent rek. Mhm. ñoom dañu am benn xaalis bu dix millions fin du mois am seen xaalis fin du mois duñ ci sonn non ñun waxuñu loolu boo demee di signer tey par exemple am na ay ay ay marché yoo xam ne sénégalais yi war nañ ko mën a def mais dañ koy jox entreprise à l'extérieur française yi ñoom ñu ñëw sous-traité ni mhm. sous-traité entreprise yi. alors que tey sous en fait da ko war a jox sa dëkk. Mhm. entreprise sénégalaise yi nga koy jox. ñoom ñooy dem. contracté sous ñu la nekk ay sous-traitant pas ñi nekk ci biir ñooy nekk yow yaay nekk seen sous-traitant mais yow mii la ñuy jox marché bi ne la demal wuti ay entreprise nga sous-traité ak ñoom mm. loolu moo lay may doole mm. d' accord euh, ñu wax ci li nga xamante ni tamit euh, moom mooy euh, yow yaa jiite comme ni mu ko waxee sànq collectif des des usagers de l' autoroute maanaam ñi jëfandikoo autoroute à péage bi jëm ci wàllum négocier li nga xamante ni mooy contrat bi dox diggante réewum Sénégal ak société Eiffage Sénac fan ngeen toll ci ci ci xeex boobu. waaw mais xeex bi mu ngi am ay jéeg ñu ci sant bu baax parce que même yàggul benn étude boo xam ne tey ñu ngi koy def. Euh, euh, de de kuréel bi collectif bi di ko def ànd ceeg Lex Africa financé par fondation Heinrich Böll ak ñun ñii OSIDEA ñu ngi ci. Euh, depuis quelque temps gis nañu ne état bi dégg ngeen ko ci fépp mu ngi jéem a renégocier contrat bi ci ak Eiffage gis nañ ne état bi bëgg na dugg ci capital bi 25 pour cent yi nga xam ne tey yàgg waroon nañ ci dugg depuis. ñu ngi négocier pour dugub bi Eiffage demande dix neuf milliards état bi ne moom dix milliards la bëgg la la la mën a lay lay fay. donc ci foofu lañ toll war nañu toog waxtaan ci. gis nañ ci autoroute à péage bi gis ngeen ay lampe temps ñu ngi ko fay def amul woon loolu ñu ngi ko doon yuuxu. léegi suñu suñu xeex bi au moins permettre na ñu gis ne lampe yi ñu ngi koy def sécurité bi ñu ngi koy yokk ci autoroute à gis nañu wàññi nañu tuuti as laa koy wax ci frais yi mooy booy génn mille francs yi wàññi na ci 1000 francs mais ñun waxuñu woon loolu dañu waxoon ci accès yi gën a mag yi. la mm-hmm. ñu wàññi. nañ lañu nañ nañ fa wàññi parce que foofu la gën a méttee ci nit ñi modèle bi nañ ko xoolaat surtout de kay tey ne communes yi ñi ci ëpp recevoir uñu xaalis bi ñu war a recevoir mm-hmm. ci ci ci ci ci ci ci ci autoroute à péage mooy commune yi ñuy traversé yëpp Uh-huh. war nañu au minimum ñun suñu lu ñu gis-gis ci li ñu gis uh-huh. recevoir ci fa cinq cent million ñoom li ñu lay wax mooy waaw ñoom lu ñu war a jox communes yi reversé nañ ko état état moo war a xool lu ñu koy reversé déedéet uh-huh. dafa war a am un partenariat direct avec les commune nga xam ne tey commune arbitré parce que tey boo ko joxee état état am na ay dañ lay dañ lay wax unité de requête mais dañu am seen i priorité bopp mën nañ ko bañ a reverser commune yi. indil la toute explication possible. Mm. alors que bu ñu amee partenariat direct ak commune bi signé. chaque année ñu ne leen yéen seen 500 millions mu ngi nii. commune yi war a mën a def ci santé bi war a mën a def ci yeneen. kër yi ñu ngi ci yooyu yëpp ñu ngi ci donc ñun bàyyiwuñu. waaw d'accord mais euh, Cheikh Omar Sy li ma jaaxal mooy yéen euh, li ngeen di xeex nii euh, dafa am solo Euh, mobilisation bi si war a am damay gis na du si am lan nga jàpp ne war waral loolu. non xam nga fii Sénégal xeex boo koy mën a yàgg naa ko wax dangay am sa conviction nga am say objectif ak fi nga ko bëgg a am na loo xam ne naam mobilisation mën na ko régler dëgg la am na loo xam def nañu mobilisation wàcc nañ bi def def fi benn mobilisation si autoroute à péage bu am doole ba ba arrêté dafa oto yi dafa mat dafa ñu dawal fa comme des tortues ndaw nànk ci autoroute bi. am na fa coow nañ ko ci ci ci journaux yi lu tax yéen ñi ba tey journalistes yi ngeen ciy wax parce que collectif bi am na jéego bu mu ci dox. loolu mooy mobilisation médiatique bi ñu ci bëggoon donc mobilisation mën nekk mobilisation de terrain. comme mën na nekk mobilisation médiatique parce que depuis ba ñu ko yëkkatee chaque un mois deux mois presse bi wax ci. donc ça veut dire am na mais impact bi ñu ci bëggoon am tamit état bi am nañ ko ci état parce que état bi mu ngi mu ngi réagir. di renégocier donc ñun suñu jeexital ak suñu objectif ñu ngi koy atteindre parce que. gis nañu ay résultat moom la même chose bi nga question boobu ñu bëri posé nañ ma ko sur le littoral ñu ne ma waaw mais gis nañu mobilisation bi mais objectif bi ñu ngi koy atteindre parce que loi la loi sur le littoral ba ñu koy xeex ba léegi ñu ngi waaj a ñëw ci kii bi donc nit booy jógal dara mën nga am cent personnes wala mille personnes wala kii te objectif doo ko atteindre. gis nañu fi manifestation yu wàcc sur le terrain pour ay ay ay ay ay yenn yenn situation yi fan la mujj def nañu deux trois mille manifestations mais mujjul fen. d'accord yooyu ça dépend de objectif bi ça dépend de méthode bi ngay wut ak ça dépend surtout nag ci résilience bi ngay am mooy résilience mooy euh, dëgëraay bi ngay am pour bañ a bàyyi ba nga am résultat bi nga bëgg. d'accord euh, ñoo ngi wax ci euh, li nga xamante ni mooy renégociation contra autoroute à péage bi wax nga ci li nga ciy wax mais tamit lu soxal contrat Senelec Akilee loolu tamit lan moo ci sa xalaat. bo xam nga man damay wax dëgg nag gis nga contrat Akilee bi. vraiment vraiment man maîtriser wu ma données yëpp. li ma ci xam mooy euh, état du Sénégal warul caaxaane Sénélec Sénélec tey moom mooy pilier économie Sénégal ak problème yu mënta am xaw ma naka la contrat bi exactement lu ko indi ak ba ñu signé loolu yëpp dégg nañ fi ay coow lu bëri Akilee nii la defee dafa demoon li ñuy wax ne ne Akilee fu mu jëlee contrat am mooy li nga xam ne dañu dem ma ne woon benn benn. benn audit bu ñu gis faay boobu ñu mën ko utiliser pour kii président de la république woone na parti parties prenantes concernées teg ci tànkam nee na lii duñ mën a àddu parce que tamit am na loo xam ne nangu naa ko ak moom mooy munoo jël takk Akilee eh, takk Senelec débbal ko Akilee moom kese c'est un c'est c'est quand même c'est c'est c'est c'est un fleuron stratégique de de l'économie sénégalaise mais de l'autre côté tamit doo gaañ Akilee ba dem indi ay entreprises israéliennes jox leen li nga xam ne tey Akilee waroon na ko mën a def donc dañu war a mën a fexe ba sénégalais yi dugg ci biir ñu rectifier tir bi nga am problème bi ñu am. war a mën a toogaat xool nu ñuy liggéey ak ñoom. loolu nag tamit dañ ko war a def dans le calme xool lan mooy intérêt Sénélec mais intérêt des populations par rapport à la gestion de leur électricité. Euh, jërëjëf euh, Cheikh Omar euh, si mbokk yi moom la invité tey ci seen émission pencum réew mi ci rajo réew mi FM ñu daal di wax tuuti rek ci li nga xamante ni moom moo xew Mali coup d'état boobu nga xamante ni tey militaires yi ñoom ñoo jël réew mi ci Ibrahima Boubacar Keïta ak la jot xew avant bi doon nga suivre li nga xamante ni moom mooy la fa doon xew est-ce que coup boobu bett na la wala bett la. bon coup d'état bi mënul la bett parce que <laughs> xam nga ku suivre l'histoire Euh, politique du du Mali ñaata coup d' état moo fa am am na au bi mooy quatrième coup d' bi. donc du la bett situation bi indi coup d' bi tamit dans le passé c' est presque pareil situation boo xam ne le président président de la république gars yi amatuñu woon confiance ci moom wàcce nañ nit ñi commencé nañu wàcc ci mbedd bi di di di di di tëbëki dal donc moom tamit président IBK deful dara loo xam ne tey. pour moytu coup d'état bi mën a am répondre woon ci besoin yi nga xam ne moom mooy population yi am garantir mënul woon mënul woon garantir sécurité Mali gis nañ fa ay ay ay yi fa amoon comme ay euh, ak ak jihadistes yi yooyu yëpp c'était des facteur yoo xam ne poussé na militaires yi ñu ñëw jël pouvoir heureusement coup d'état la boo xam ne presque pratiquement amul kenn ku ci gaañu amul dégguñu benn coup de feu bon am na coup de feu mais téerewuñu ci askan diruñu tat dañu dugg fekk fu mu toog moom premier ministre bi ko après moom mu ci bopp mu ne moom fu mu ne doy na bëggatul nekk président de la république. taxawaayu militaire yi bon taxawaayu militaire yi il faut que ñu mën ko analyser ak dal ba pare sur ko xool ko sur le long terme parce que ñoom ñoom tamit waruñu mën a jël pouvoir bi aaki moo ko pendant au début dañuy wax dans trois ans ñu génn démentir leen du trois ans un an mais gis nañu jéego yu ñuy teg nii c'est pour mën a maitriser état bi war a mën a mën fa toog pour période de transition bi. période de transition boobu dañ ñoom dañ ko war a waxtaanee ak parti politique yi waxtaanee ko ak société civile bi ñu leeral par exemple dans six mois war nañu mën a def des élections parce que ay institution gis nga euh, ATT ba mu fay jógee mais même bañ ko def doon def coup d'état assemblée nationale mu ngi doon dox yeneen institution mu ngi doon dox mais IBK ba muy jógee foofu benn institution doxul donc l'urgence c'est les élections les les élections législatives les élections locales comme ça dëkk bi am au moins ay institutions yuy dox te loolu war nañ ko mën a toog def ko li mu gën a gaam dans les six mois à venir. d'accord armée bi de delluwaat caserne ñu préparer les élections présidentielles ñu mën a am euh, président. Euh, CEDEAO doon na si dox daal ki jàmm avant coup d'état bi ñenn ñi dañoo jàpp ne CEDEAO dañoo lajji lan moo ci sax non CEDEAO ni ni ñu jëlee woon problème bi c'est vrai dañoo lajj loolu moom kenn kenn ci euh, mënu ko laam-laamee parce que ni ñu bëggee woon ne nañu delluwaat IBK ci pouvoir bi. mënta ne dem nañu négociation ak waa M5 yi gars yi bañ nañu donc échec la ci ñoom échec la posture bi Alassane Ouattara amoon di nee ne nañu tëj euh, frontières yi sanctionné leen pour ñu woon loolu du du xel heureusement que président de la République Macky Sall àndu ceeg moom parce que ñun suñu premier partenaire aujourd'hui dans la dans la sous-région c'est le Mali li fi jóge ci camion di dem ci Mali jóge suñu port di dem ci Mali du ko jóge Côte d'Ivoire donc yow boo asphyxier l'économie malienne mais tu asphyxies l'économie de la sous te ñun sociologiquement lu ñu am ak rapport ak Mali amuñu ko ak yeneen dëkk yi Mauritanie lañ ko amal mais surtout deuxièmement c'est c'est c'est c'est c'est le Mali. Ah. donc yooyu tamit dañ ciy bàyyi xel dëkk nag di ngeen am kuréel di nga am ay objectif mais nag dëkk bu nekk dafa may intérêt te ñun suñu intérêt mooy stabiliser par Mali jàppale leen ba ñu amaat ay institutions yu dox parce que loolu tamit suñu suñu suñu suñu sécurité daf ci dépendre. Euh, li xew Mali ñenn ñi jàpp nañ ne. mën naa xew fu mel ni Sénégal lan moo ci sa xalaat. yaakaaruma ko bokk te ñaanuma ko tamit malgré lu tax ma koy wax parce que un ak coow li mu lu mu mënta bari bari bari gisoo fi ay traite yu fiy tuuru comme Mali nu mu doon tuuroo ak jihadiste yi ak situation Mali ça fait un million deux cent mille kilomètres carrés Sénégal ça fait combien de kilomètres carrés Mali presque fait dix fois le Sénégal ça c'est une chose deuxièmement la situation. bi nga xam ne Mali bu mu nekkoon ba Libi di daanu Sénégal nekk ko woon troisième euh, troisièmement am nañu assemblée nationale buy dox même bu nekkee mën nga ne non jaar na wala daan daan l' assemblée nationale et là elle elle existe elle fonctionne. tu as de, le conseil économique social et environnemental am na ay institutions yu ñuy fonctionner l' administration fonctionne on a une armée qui est responsable qui fonctionne on a une police qui est responsable qui fonctionne mën nga bañ lii wala nga ne wax ay bavure fii wala mais on a de manière générale on a un état qui fonctionne lenn la ñu war a mën a bañ. mooy affaiblir les institutions loolu moo dal Mali affaiblir l'opposition ba nga xam ne tey opposition bi du du dootul amati loolu ba ba nga gis li am mooy dikko lan moo ko indi affaiblir opposition ba leader religieux am fa doole ba ñu mën a am ba ñu mën a am tey kii donc il faut permettre à la démocratie de fonctionner aujourd'hui li ñu mënta wax wax wax mais am na dialogue politique bu am hmm. Sénégal te amul woon ni mu ni ko bëggee Mali donc situation bi c'est pas comparable te loolu tamit waruñu ko ñaan parce que dëkk buy dox am pétrole ak gaz war a mën a séntu defar askanam pour ëllëg jàppale yeneen dëkk yi nekk ci ginnaaw ñu dox waruñu mën a ñaan dëkk boobu daal. ah d'accord honorable député yaa ngi wax ci dialogue bi euh, dialogue politique bi ñoo ngi wax euh, lu jëm ci wàllum statut de chef de l'opposition euh, ak ñàkk déggoo cumul chef de l'état chef de parti la moo ci sa xalaat. waaw man cumul de chef de l'état chef de parti moom mosuma ci d'accord dama ne boo nekkee chef de parti boo xasee ba falu. Mhm. boo xasee ba bàyyil parti bi ak keneen yow nga détaché nga nekk un président pour tout le monde. d'accord chef de gis nga France mu noonu la dem États-Unis yeneen dëkk yu bëri noonu la dem le président de la République bu xale ba xasee ba faru kii la bu parti après amee secrétaire wala mu kii mu géré ko à part mais bu mu bu ñu confonder les deux chef de l'opposition pour tamit man amul amul sens tey boo dee la jëlee chef de l'opposition da nga gis ne yaakaar ne waa opposition yi dinañ dem jébbalu ci ginnaaw chef de l'opposition. da yaakaar ne ñoom tey liggéey bu amee dañ dem toog ñoom ñëpp ci ginnaaw chef de l'opposition jébbal ko ne ko yow la ñuy jox suñuy kàddu ak suñuy làmmiñ on est on est en politique duñ ko nangu parce que ku nekk da bëgg dooleel sa bopp élection jaar na fi le chef de l'opposition est-ce que seulement dañ koy déterminer parce que élection présidentielle jàll na fi leen dañ koy déterminer parce que représentativité assemblée nationale moo a yooyu c'est des débats de seconde zone parce que li ëpp solo pour askan bi mooy naka la ñu man dama yaakaar ne opposition li ko war a mën a li ko war a mën a tax a jóg ak taxaw mooy am ay proposition alternative par rapport ak politique bi nga xam ne ñi fi toog ñu ngi koy def. Hmm. ak état askan bi gis ne proposition yi ëpp na doole li fi ne ñu war a mën a changer régime boobu jox ko ki nga xam ne moo ko proposé wala ñu ne ki fi ne li mu fiy def doy nañu doy na xel ñun ñu téyaat ko fi. d' accord lu jëm ci wàllum dialogue politique bi si la ñuy desandi euh, parrainage bi peut-être bañ koy voté assemblée la fekk mais nañ ko ci élection locale yi euh, lan moo ci sa xalaat. waaw parrainage bi non fekk moom boobu suñu mandat ñun euh, jeexoon na ba pare. mais naroon na jafe ci élection élection locale yi parce que gis nañ fi coow bi mu fi indi ci élection présidentielle bi. Hmm. donc il faut ñu évaluer ko. Euh, te xool élection locale yi naka lañ ciy demee donc ça a été une difficulté gis naa ne innovation bu mag mag mag boo xam ne tey askan bi loolu la doon gën a laaj. ci ci li ñuy def. mooy nee ne bu ñu voté maire nañu xam kan mooy maire mais dañuy ñëw. ñu jiite ay liste nga dem ba nu ba ñu ne la diw moo nar a nekk maire conseil yi ñëw def leneen. ñu jënd leen ñu dem ñu jënd leen donc loolu innovation ma machine la donc je crois que yooyu bu ñu ko mënee résoudre ak le fichier électoral war nañu mën a dalal xelu nit ñi. jéem a xool nag. élection yi ni ñu koy repousser di ko repousser waat naka la ñuy respecter euh, le calendrier électoral parce que ñu mën a changer ah. mair yi. ñu fi nekk. mais mais mais honorable li ñu nemmee ko tamit mooy élection locale yi tey euh, Aly Ngouille Ndiaye démb dégg naa mu wax ko euh, fichier électoral bi pour ñu pour ñu auditer ko euh, dafay laaj dafay laaj temps am na si point yoo xamante ni mën na jaar peut-être assemblée national ak Sénégal jafe-jafe gi mu am ci wàllum koom ñu bëgg génn wat ay milliards organiser ay élections législatives ay élections locales du yàgg dara élection législative ñëw ñenn ñi jàpp nañ ne mënoon nañ ko boole ak élection législative yi lan moo ci saxlaat man ci ñi ci ne ci ñii nee nañ ko war a boole ak élection législative yi ci laa bokk parce que situation pandémie bi priorité bi mooy jël mooy jël jël euh, mooy jël en charge euh, askan bi seen problème ak seen problème ak seen dund parce que xaalis bi ñu nar a dugal ci élection locale yii nii nii nii nii nii ah man pour man c'est prématuré bu nekkul woon situation économique bi naa ne waaw mais à situation exceptionnelle mesure exceptionnelle. mais dañ ko war a def tamit. mu jaar yoon bu nekkee tey war nañ ko yóbbuwaat repousser ko nga xam ne deux mille vingt deux la jam am nañu temps xool fichier électoral bi am na ñu temps stabiliser li ñu war a wax yépp ci ci dialogue politique bi donc loolu la mais man gëm naa ne tey situation économique bi ak dëkk bi nu mu demee organiser bi ay élections c'est très compliqué pas ne parce que mais financièrement xaalis bi ñu wañ war a def war nañu war a mën a toog tuuti xool naka lañ koy. naka la ñuy dajalewaate suñu koom-koom balaa ñuy dem ci élection parce que élection dafa cher. d' accord jërëjëf euh, honorable député Cheikh Omar Sy yow yaa nekk président de l' observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique euh, léegi euh, ñu wax ci li nga xamante ni moom mooy mbiru ñetteelu mandat ci Sénégal ñenn ñi dañu jàpp ne président Macky Sall si doxalinam mooy moom la ñenn ñi njort ne dafa bëgg sampaat ndëndëm ndax am na ay jegeñaaleem yoo xam ne. wax nañ loo xamante ni niroo na ak moom mënut a sañ-sañ sampaan dëndëm mu daal leen di euh, dàq wala mu tekki seen ndombal tànk euh, coow loolu commencé juddu ñenn ñi jàpp ne sax ne du débat dafa euh, prématuré yaw lan moo ci sa xalaat. man pour man c'est pas prématuré te président de la république ay ay say naataango journaliste toog nañu mu wax ne moom mu ngi ci deuxième mandat bu nee ne mu ngi ci deuxième mandat mooy mu ngi ci dernier mandat dernier mandat boobu il faut mu leeral ko mu waxaat ko nit ñi leer mu leen mu leen man defatuma nee ne waaw bu bu boo xëy ne dootul def deuxième deuxième mandat day day tax ñenn ñi du ñu liggéey kooku man pour man c'est c'est bu ñu liggéeyal nga dàq leen mais l'essentiel yow ci kanamu askan bi nga jël sa décision ne man fu mu ne nii def naa liggéey bi moo war a def la ca des ña àndal fii wóolu naa ci diw ak diw ak diw ak diw ñu remplacer ma parce que ànd nañoo man ci liggéey bi am xam nañu vision bii mën nañ ko compléter bu ñu nekkee seen biir parti ñoom ñu xool ci ñi mu tànn ñu ne ah diw kat kon nañ ko jiital par rapport ak suñu parti mu ah ñu ànd ak moom pour 2024. est-ce que mënuñu war a déglu conseil constitutionnel. waaw non balaa ngay dem ci conseil constitutionnel conseil constitutionnel lan la fi mës a changé. kan la fi mës a tere mës nga gis un un président au pouvoir bu conseil constitutionnel ne du présenté wu. gis nañ fi le cas d'Abdoulaye Wade. gis yaakaaruñu ci moom sax lan la ñu mën a yaakaar ci conseil constitutionnel. ils vont valider ce que le président a loolu moom dañ ko wax. li ci li ci am solo mooy président bi jël engagement man li ma gëm mooy warul nekk parmi les présidents yoo xam ne suba day génn dëkk bi fii la war a toog 2024 mu def fi liggéeyam on est plus de 16 millions d' habitants le président de Macky Sall n'est pas le seul intelligent yàlla may na ko def na li mu mën. mais yàlla may nañu ñun tamit xel boo xam ne mën nañu développer suñu dëkk. suñu mujjantalu laaj mooy déclaration patrimoine gis nañ ne euh, président Macky Sall fan yi la ñu génn mayoon euh, yenn ci ay ministres lu toll ci 45 jours euh, délai ba jeex na of nag génn nañu communiqué nee nañ si 34 ministre yi 33 yi. def nañ 35 yi 34 yi def nañ déclaration patrimoine ñenn ñi sax dañoo jàpp ne rawatina surtout waa forum civil. kane euh, loi bi li mu wax mooy boo amee ndomba tànk rek ñetti weer nga def déclaration patrimoine sooy génnaat mel ne la ñetti weer nga defaat sa déclaration patrimoine soo ko deful jalgati nga loi lan moo ci sa xalaat. Ah, li waa forum civil wax dëgg lañu jalgati nañu parce que président de la république kañ la wax ne nañu ñu ministre def seen seen seen déclaration presque un an et demi bañ bañ jëlee fonction. Mm-hmm. jalgati nañu loi bi am na ñoo xam ne wàccee nañ leen defuñu seen déclaration de sortie de patrimoine ba léegi. donc am na lu ñuy jalgati loi bu nekkee nag ne OFNAC nee na sur les trente cinq trente quatre kooku mooy quatre vingt dix neuf pour cent yëpp def nañu seen kii. Mm-hmm. ah loolu lu baax la. Mm-hmm. kat lu un pour cent bi après ñu jéem a xool la. mais li ñu war a def mooy fexe ba respecter loi bi délai yi mu wax bu neewee ne fal naa diw mu nekk ministre. Mm-hmm. tey fal naa le directeur de Dakar Dem Dikk suba Dakar Dem Dikk directeur bi war a mën a def déclaration de patrimoine am en moins de trois mois. loolu mooy délai bi. bu fi falaatee keneen la même chose la même chose la même chose mais doo xaar ba affaire ba sori. ba ca fajaat nga xaar ba timis nga ne def na seen seen liggéey ñoom tamit waaw mais xam nga of nag tey fii li moom exécutif dafa bëri doole. moo tax ñu war a libérer of nag war a libérer IGE les corps de ñoom ñu def seen doole à part ñoom ñu am seen autorité à part. boo xam ne président de la république du ci lu ci am lu mu ciy wax. kon liggéey bi daayar yoon mais leneen loo xam ne ci suuf président la république moo koy décider. day metti ba mu ko décidé ci saa si lañ ko def. d'accord jërëjëf euh, honorable député ñoo ngi lay sant di la gërëm lan ngay tàggoo. Euh, di la jaajëfal di la remercier vraiment ci tey émission bi ñu ci réew mi FM di yaakaar ne li ñu fi wax am na xam-xam dina am njëriñ ci askan bi. mën naa am tamit ñoo am ci njuumte euh, ñaan yàlla lépp lépp yàlla tegal ci yoon sàmm ñu sàmm dëkk bi fexe ba mbas mi jóge fii di jaajëfal ñëpp. jërëjëf euh, honorable député Cheikh Omar Sy ñu koy sant bu baax di ko gërëm moom moo jiite euh, collectif bi nga xam ne euh, ñooy xeex njariñu ñi nga xam ne ñooy jëfandikoo autoroute bi moo nekk tamit président de l'observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique moom la ñu invité woon tey ci samedi ji seen émission pencum réew mi ak Abdou moom Seck Mamadou Diawa Diallo moo nekkoon ci wàllu technique bi jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm